man maa ngi tudd Libaas Diagne maa ngi bokk ci collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye Gare tey dañ fi daje woon tey pour def benn euh, réunion benn rassemblement sous forme de réunion d' information publique à l' endroit des parce que dañu am lu yoo xam ne dañ ko dañ ko doon ñaxtu fan yii yëpp war na ma fukki fan ak juróom ñu xëyee benn jour gis APEX bëgg a tëj voie de passage yi nga xam ne moo nekk ci raay bi te war ñu permettre ñun en tant que population ñu mën a suñu infrastructure de base suñu doom war a dem ci école yi ñu war a dem ci hôpital yi faju suñu soxna yi bu ñu waree matal ñu war leen yóbbu ci maternité yi donc loolu lépp ñu gis ni projet yi bu ñëwee bu tëjee bunt yi loolu lépp daf ñu koy xañ dootuñu ko xam donc on di wàññeeku di wiiri ci ay communes pour dellusiwaat Thiaroye pour suñu doom yi mën a def école jàngi donc ñu gis ni c'est des situations yoo xam ne mënuñu ko accepter moo tax dëkk bi yëpp jóg taxaw nekk benn mag ndaw góor jigéen ñëpp suñu seen i mbubu politique kilifa diine yi kilifa aada yi yi góor ñi jigéen ñëpp taxaw ñu ni situation boobu mënuñu ko nangu et puis duñu ko accepté donc am na ay waxtaan yu ñu commencé ak euh, APIX mais juru ci jurul dara en terme de proposition concrète donc mu nekk loo xam mënuñu ko nangu te bu ñu jógee ci lii it ñu ngi interpeller autorités yi au plus chef le président la république son excellence Macky Sall le gouverneur ak képp ci mën a parce que si on n'obtient pas gain de cause dañuy dem à ci beneen vitesse bu gën a supérieur bu ñu arrêté tant que li ñu soxla amuñu ko te li ñu soxla weesu lu dul ay passerelle yu ñu mën a jaar suñu doom mën ci jaar dem jàngi suñuy soxla mën ci jaar dem marché ñu mën cee jaar pour dem ci hôpitaux yi ak yeneen infrastructure yi nga xam dañ ko soxla. APIX da leen proposé ay bus tamit pour ngeen mën a assurer transport. waaw APIX loolu la gis comme solution parce que nee moom nee pour jàppale ñu bu ñu tëjee bunt yi mu indil ñu ay bus qui ñu permettre ñu def ay grand tour presque ay tour un kilomètre deux kilomètres pour que mën a dem école de six heures du matin à vingt deux heures te ñun caaro yi ku xam caaro yi xamul caaro yi di fonctionner comme ça yoon yi nga xam ni moom lañ ci bàyyi presque vingt quatre heures sur vingt quatre nit ñi dañ koy traversé. donc mënuñu limiter nit ñi également ci 6 heures du matin ngay jóg 22 heures ngay tëddi quand même loolu ku xam caaro yi xam ni caaro yi également du fonctionner comme ça moo tax proposition bi ñu ko defee en unanimité bila dëkk bi yëpp dañ ni lii du proposition bu ñu mën a nangu mais léegi mu mel ne waxu Mountaga Sy dafa leen doon ba ngeen interpellé Macky Sall bu ngeen moom tey lu ngeen koy wax waaw lu ñu koy wax mooy ñun Thiaroye Gare dañ ko déposé dañ dañ jox Mountaga Sy mémorandum mémorandum bi laajuñu financement laajuñu appui laajuñu dara li ñu laaj mooy suñu droit de pouvoir nous déplacer librement à l'intérieur de notre commune droit boobu li ñu koy may mooy ñu ay passerelles fi ñu permettre fi ñu doon dem ci dëkk bi ñu continuer di fa dem librement. si toutefois loolu amul. si toutefois loolu amul di on réfléchit en interne et puis am ah, ok si toutefois loolu amul danañu ñu ngi xalaat parce que ñu ñu ngi waxtaan chaque jour te dinañu teg ay plan d'action yoo xam ni moom mooy gën mooy ëpp intensité en tout cas que que passerelle a def ndax parce que ñu bëri dañuy wax ni ñun dañoo xaw a jóg man aw ma impression boobu li tax mooy dañoo bàyyi woon ay yoon teg ay plancher ñu ni fépp fu plancher am day am passerelle te yoon yi yi plancher yi amoon dañuy ñu jékki-jékki dindi plancher yi ñu dañuy tëj yoon yooyu moo indi ñëpp jógandoo parce que mënuñu accepter quand même ñu ñu tëj yoon yooyu.